salaamaaleykum maa ngi jëloon ziar bu baax a baax ah waaw loolu la kon tawfeex la ndax daanaka man daal maa ngi côté buntu bi donc li may def mooy damay jaar central équipement rek li jëm ci bagage ak moo ñu ngi dem incha allah bu soobee yàlla. sëñ Fallou alhamdulilah. central équipement dafa centraliser lépp loo soxla ci équipement cuisine ci seen ndaje diine yu mag lu si mel ni màggal wala gàmmu benn bërëb rek sa aajo daal di faju central équipement di jox lépp luy taaral kër di bakkanal dund gi. Central Équipement. Venez vous équiper à moindre coût. Nos prix défient toute concurrence. La qualité est notre credo.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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen émission wàccaayu màggal gi comme niñ leen ko diggee woon dana ñu jaar mbooleem foo xam ne rek jeexiti sëriñ bi dafa am incha allahu tey nag ñu ngi fii ci Darou Salaam Darou Salaam di dëkk bu màgg di dëkk bu tedd boo xam ne sëriñ Touba Xadimu Rasul moo ko sanc lu jiitu muy dem ci géej gi Darou Salaam nag kooku tudd da nga tudd maam Cheikh Anta borom gaawaan incha allahu taala danañu ànd ak eh, boroom xam-xam bu mag sëriñ maam Balla Gueye incha allahu mu indi ñu cosaanu dëkk bi. ak euh, bu ñu tuddee màggalug Daaru Salaam ñibbig sëriñ ci géej gi ku ne xam na ne nganug Daaru Salaam ngan la gu amam solo incha allah taala loolu bokk ci euh, wàccaayu màggal gi bu soobee yàlla ñu ànd ak Mame Balla bi ñu ngi fii ci Daaru Salaam di siyaare baax sëriñ Abou Mouhamad xalifatu Cheikh Mouhamadou Mamoun nekk doomi soxna Maymuna al Kubra bin Cheikh Xadim tey jii moo yilif dëkk bi mooy xalifa sëñ Modou Mamoun daanaka di siyaare baax nag kilifaam di xaritam di wettalam muy Cheikh Mountakha Bachir xam ni ñoom ñaar benn lañ ñu ngi nuyu ëtt bi nga xam ne mooy Daaru Salaam sëñ nga ni nga ko waxee rek Salaam sëñ bi da ko sañki ci dasas la ko sañki dañuy wax ni mille trois cent la ko daje daje dajeeg talaata fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar kon tamit bis bi ñuy màggal Daaru Tuuba mooy anniversaire mag ma jëmmi dëkk Daaru Salaam bi fukki fan ak juróom-ñett ci safar bisub talaata la ko gore si kii wax kon talaata fukki fan ak weeru safar yi ñuy màggal ku baax yi mooy sancub ak sat Salaam bàyyi ko Mbàkke Bawal ñu naan ko déedéet mu sanc fa wetam daaru salaam ngir bañ lu xeetoo ki xaraam ak i malaam mhm. daa bàyyi ko Mbàkke Bawal rek ñëw sanc fii waaye bi izni minallaahi bi izni minallaahi ndax nee na nee na moom ku baax ki allahumma innaka xutta zimaami mhm. ila al ardi allati xtartahaa lii mhm. wa banaytu fiha addaarayni wa sammaytuhuma daara salaami wa tuuba tabarakam bihima yàlla moo ko wom mat sa ngere ne ko sankeel fii moom ku baax ki loola wax kotta zimaam yi mu ñëw ba ci barab borom gaawaan boobu moom mooy première néeg bu Sëñ Tuubaa am ci kaw so fi daaru salaam ànd ak sëñ borom daaru Cheikh Ahmadou Ndumbe Seydi Rahman Lo borom ndaam kooku sax moo ko defaloon li saxaar bi mu ñëwee Cheikh Rafal ñooñu la ku baax ki ànd ñoo sanki daaru salaam bisub talaata fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar dajeeg mille mille huit cent am ni six la waaye loo jàpp baax na six six yaatu na kat yaatu waaye loolu la taarix baaxoo sañ ko ñu ndigalu boroom tabaaraka taala bi mu ñëweet li gën a doy waar sëñ Gédé sëñ bi mu ñëwee Daaru Salaam dana yàlla yassir na tooli bi fii daari salaam wa haysu ma makastu innaka salaam yassir fiul amru la mm. impératif la yàlla nga may jàppandal boo samay mataalib samay mutalabaat yi ma bëgg yëpp fi daari salaam mm-hmm. ndax booba taalibe yi amagul mbooloo moo xam dañu am lii ba Sëñ Tuubaa moom mm-hmm. booba njaboot gi ñu bari buñ génnee àdduna dañuy dem mm-hmm. bi mu ñëwee fii nag ci la yàlla nangoo ñaanam Cheikh Moustapha gane fi àdduna Cheikh Fallou mu am dëkk bu moomal boppam yàlla jox ko ne ko yaa moom suuf si ixtartahaa lii yàlla ko suwaal loolu loolu ci kuy sañ ci amee loonu ci boroomam mu ñëw nag bi mu ñëwee ne yàlla yow kat jiitu xunaa agsi naa fii baneetu hauna binaan arto gi min ka biftitaaxa kulli murta gi yàlla bi ko yaa ne mu ñëw Daaru Salaam bi mu ñëwee nag tabax naa ab tabax boo xam ma ngi yaakaar tabax bi mu ubbi mbooleem lu woon ci man te war a ubbeeku tabax boobu booba danañ fi ñëw mooy question question bu mujj bi muy jumaa ji mu def jàkkee mu def jumaa yi sàkket tuddee ko binaa ndax xam na bis dana ñëw mu nekk binaa naaw xes da googu moom daanaka sëñ Gédé mhm. ma ngi koo jàppee ma la foo seen daaru salaam noonu la ko daal moo ngi moo ngi ko tëggee moo ngi ko ubbee ji hamdan liman bi almi wal ibada mhm. yamunnu may yarsuquhu saada ah, ne yàlla dëkk bi nag muy Daaru Salaam ñëw naa fi nag yaa ma ñool ñëw naa fi asaawi inna ni inni inni ma yaa xaliimu jiitu huna wa inna ni muliimu gi gi fawsi ni wax wa kullu man xadamana aw saara fa kullahu na ko foofu wa kullu man xadamana aw saara fa kullahu wa kullu man xadamini aw saara fa najjihi ca fawsi ni da koo fonkoon. waaw da koo mu waaw ba mu li mu njëkk def mooy agale foofu agale Masaalikul Jinaan Masaalikul Jinaan bi ñu wax. sëñ Sa sëñ Sa Mbaye wax na ni fii la ko agale même raw royaaxin taxqiq nañ lool ni fii la agale Masaalikul Jinaan ku baax ñëw na fii nekk néegam mooy barab maam Cheikh Anta bi daan bàggante si fii fii mooy jumaa ju njëkk a tabax mu ko baax bañeetu xaw naa beneen arto ji de ñëw incha allah taala armeel yi nag. boo demee ba ci biir foofu daara barabam la woon am na yéer goo xam ne ba léegi nii datt baa nga fa fa la daan wéeru fa la àggalee masala ko ginaan ak armeel daani suuf si yàlla moo am na moo tax maam nekkul maam moom mu koy doon baalu muy bayee baalu muy same waaye yàlla moo ko li mahdil ibadatillahi taala li sellal jaa li mahdil ibada bi mu ñëwee ba toog nag ba nga xam ne maanaam am na fi ñaar Eh, bi mu ubbee bi mu bi mu Salaam mag ñëpp ñëw nekk fi mu ngi laa roññaan yàlla may na ma ko ndax amoon na yéen barab bu ma am ndax Mbàkke Bawal dëkk maam la Mbàkke Kajoor yooyu yëpp moomu ko woon waaye fii nag la ko yàlla ne eh, sam eh, sanc ko tuddee ko Daaru Salaam te boo xoolee sëñ Gede xutta zimaam yi wa samaytuhuma Daaru Salaam wa Tuubaa mu nax mu naan Tuubaa Daaru Salaam benn ardu ardun waaxida la maam ci ñaari kër waaye bii nag ki la gisee leeru Tuubaa da koo jig lool waaw neen da koo jig lool loolu la wax ah, wax na ko neen da koo jig lool neen da koo jig ndax bi ko da ko am rek lépp ubbeeku wax na ko ci xas dëgg nee na ko arta ji minka ibtitaaxa kulli murtaji li tëju woon ci man te war ubbeeku na ko dëkk bi ubbil noonu la amee boo xoolee jumaa ji njëkk am fii la jumaa yi ku baax bari na léegi Cheikh Cheikh dafa fi amee ngërëmul boromam ba ñaanal ko jóge fi dem dar mu ne ko la ma jàppan la ma jàppan jafe woon lépp yàlla jàppandal nga ma ko fi Daaru Salaam yassir ma taalibi fi Daaru Salaam ñeen da koo jig moo tax boo xoolee jiggiñ ko jig moo tax na ko waaye mayewu dem na ba géej ne yàlla lahu taala rujuan min idaaya ila Daaru Salaam ci tuuba naa bi te jiidi te mayoon na ko bu ko bu doon bu doon da koo maye maye mutlaq kon duñ duñ naa fa delluwaat. jig gi ko waral. mu mu mu bëgg ko. bàyyiwu ko Cheikh de. dëgg mu ñëwee ci géej gi ngi ñaan naa fi dellu si waat ba ne tarjumaan ala ineen usni dégg ko mu naan basiri muminina wal muminaati wal muslimina wal muslimaati bi bi sami rujuwaay wa liqaayi ila daari salaam aajilan <laughs> kon xam nga ne moom bàyyiwu ko Cheikh ndax da ko da ko da ci am loo xam ne Sëriñ Tuubaa eh, benn nit nee na ma Sëriñ Tuubaa yëfi yàlla yor yëfi yàlla <laughs> yi sa borom maam faggu tif siñ bi yëpp maam dafa dafa dafa sell dafa yàlla kon dëkk bi moom la njëkk a sañ ki am fi njaboot goo xam ne sono farja taawam bi fii la ko dëkkaloon sono may Kubra bi mu jógee fi mu doon liggéeyal yàlla ci nit ñu baax ñooñu fii la mujj xel doo am tey Sëriñ Abou Mbacke mooy xalifa Daaru Salaam kon dëkk dëkk bi Sëriñ Tuubaa la waaye mooy wax yàlla nag ijaal salaamatan taduuma yaa salaam li wala ayaali fii daari salaam Salaam taarix bi mooy bi Bamba bàyyi koo géej ñibbisi alhamdulilahi ala qudumi li hadihi daari bila kulumi léegi ma wax la magalu Daaru Salaam nga xam ne magal gu wér la doona manaam ku baax moo génn liggéey li salaam ñaan yàlla ne ko na nga bégal ak way gëm ñu góor ñi way gëm ñu jigéen ñi bi samia rujuwaa yi wa liqaayi ila daari salaam te ala ina ni us ne ku koo xam-xam ne géej gi la loolu kon sëñ euh, Guédé loolu mooy mooy mooy mooy sababu màggal daaru salaam euh, muy màggal goo xam ni sëñ bi moo ko ñaan boromam tabaraka taala wallahu yad'u ila daari salaam la baam dal ñëpp ni muut duna malaam loolu moo nekkoon eh, sababu màggal gi sëñ Gede jubaa gi dafa am privilège am xasaayis wajangal binaa yi daa ihi lii yaa salaam daara salaam bi la siy jëla waraam xool wajangal binaa yi daa ihi mooy mooy haatihi lii yaa salaam mu nekkal man mu jumaa gi nen dama nekkal man mu nekk daara salaam goo xam ne jëla waraam day wuññi ay lëndëm daal di ñëw bu mu ko sañcee rek bu mu defar ci néeg jumaay sàkkatam yooyu wala jàkkee sàkkatam yooyu première prière bi julli sëñ bi nodd loolu loolu tawfiixu Daaru Salaam la loolu mag ñëpp ko ne waaye lu wér la daan nodd tak tusbaar jiite tak sar mu jox sëñ Muudu Muxtaar Mbay mu noddu sëñ bi jiite timisaat sëñ bi noddaat xam si bi noddu de bu ñu noddee pare diggante timis ak gee sëñ bi jiite sikar si dikrullah ki ñuy wax dikrullah yoonu murid yi ñuy wax ñu doon fii la ko njëkk a dëbbee mu ngi ko baax ki buñ masaa nodd murid yi dikar bañ jël ante ñooñu door a kàbbar loolu suñ gaa suñ tubaab ko njëkk a def ba léegi koy def bu matee semaine nag la jox nodd ka bana fa léegi sax no sax nodd ngi noonu waaye moo fi moo ko sanc fii ñu toog ñi moo ko dal boppam sëy boo da ko dugalale ci biir jumaa ji da Sëñ Tuubaa daan jullee fa daan fa mu rëddoon ko cee dugal maanaam daan fi noot daan fi dikar daan fi jiite ba am deux cent ñaari yala yàlla wan ko leeral Tuubaa bu dem Tuubaa bàyyi ko Cheikh Anta wa kullaha fi sirri wal i'laani hatta taswira alam al na dem ba ñëpp xam ni Daaru Salaam ay Salaam te loolu jumaa ji gën na ko feeñal ren gi 2023 bi yaakaar na ki ñoo xam ne léegi dëkk adduna bépp xam nañ ni Daaru Salaam ay Daaru Salaam jumaa ji Sëñ Tuubaa njëkk taxaw njëkk koo sàkketal boppam njëkk fa julli njëkk fa nodd njëkk faa dikar dem ba tey jii taalib sëñ tubaa maam sëñ tubaa seexal ko Cheikh Abdoulaye Dia sëñi ko see boo mii di sëf sëñ direct jiite liggéey bi ba mu àgg amul benn taalib bu ci participé Abdoulaye Dia def lépp yéen a julli ñëpp ñu ni foofu mooy dëkk ban mooy dëkk bi sëñ tubaa njëkk sañci jumaa ji doon ñaan yàlla na ma def jumaa ji léegi mu wuññi jumaa gi na leer léegi na ubbi samay jumaa yi ma war a am na ubbi jumaa yi ma war am ci adduna yëpp bii mooy premier jumaa boo xam ne suñu baax nee na ñaan yàlla mu ubbi mbooleem jumaa yu ma war a am man Ahmad Bamba ci adduna te yaakaar naa ubbi gi am na mbokk yi euh, lii lañ leen jëlee loon fii ci Daaru Salaam di barab bu tedd barab bu amam solo ku déglu waxtaan wi ni mu jàllee di nga xam ne barab bu mata ñëw la barab bu siyaar la